fondation humanitaire bu Jolof mu ngi wéy di bay waaram ci wàllu njàng gannaaw bi mu jàppalee Awa Gadiaga di jànge ca CEM Anglais Islam ak Fatmata Ka nekk ca group scolaire la Jolof ci lu jëm rawatina ci wàllu inscription ak fourniture scolaire ñoom ñëpp am nañ seeni lijaasa fondation humanitaire bu Jolof ñoom ñu am ci mbégte lool ba doxantu seeti leen Fatmata Ka dëkk ca fàkk dëkk ca quartier Anglais Islam moom mu am mbégte lool ci fondation humanitaire du Jolof. loolu yëpp fondation bi moo ko waral surtout tonton Malick Sarr moom mi jaar fi jàppale ñu boole ñu waa fondation ñu jël ñu en charge jënd ñu ay fourniture inscrit ñu chaque fin du mois daal ñoo si jàpp heure ma ñëwee rek ñu jox ma daal te amul benn problème te problème bu mu munti am yëpp su ma ñëwee si ñoom rek ñu jàppale ma maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax ñu baax lañ su la neexoon nag duñ ko def nag waaye nag ah mënuma leen fay daal. waaye juróom bi jigéen wi nga xam ne nangul woon sax àddu ci suñuy micro ndax mbégte mu jàpp ne tolloon na diggante boo xam ne nii bu fondation bi ñëwutoon rek du baax. lay coono euh, tuggur génn du ma lekk du ma doom bi euh, toog fii di jooy xaw lu may def dañ koy euh, da takkoon école dem mënuma fay. maa leen di sant di leen gërëm ñu ne la jàppale toog ba léegi maa sant dara ngeen jëf. bi nu jógee fàkk dëkk délégation fondation humanitaire bu Jolof dem nañu ca quartier Lamsaar foofu nag Fatou Gadiaga moo nekk deuxième di centre ci BFM bii mu xamle ne waaye juróom bi feebaroon naroon na gàllankoor lii di am njàngam. maa ngi nekk ak sama yaay sama yaay amul moyen. léegi mu feebaroon nag léegi nag mu nekk ak ñun mu metti lool si ñun mu mu metti lool si ñun waaye mu jàpp ñu yàlla boole ñëw nag tonton Allé par le biais de tonton Maodo Thiam ndax yaakaaroon nañ ne bu ñu fondation bu jàppalewutoon wutoon kon duñu am fourniture yu jàngee kon mën naa suñu jàng mën na yàqu foofu noonu mais mu jàppale ñu jox ñu furniture yi doy yëpp teg si jox ñu inscription ñu dem inscrit continuer mu ñuy suivre loolu nag yokk ñu jom motiver ñu ñu gën a góorlu di jàng ndax ñu ne ndax ñun boo doonee góor bu la nit jàppalee leen doo nga ko mën a fayee mooy nga góorgóorlu yow tamit fas naa am résultat yu baax léegi looloo tax nag ñu góor góorgóorlu ba premier semestre ba mu dikkee yàlla jàppale ñu ñu am moyenne de 17 première avec une moyenne de 17 virgule 63 te loolu grâce à fondation ndax bu ñu amatoon suñ fourniture wala suñ inscription bu ñu jàngee kon kon mën naa ne duñ am résultat yooyu noonu te nekkuñu ak gisuñ kenn yaay doo nga lañ gis ñu jàppale ñu ñun daal fondation mënuñ leen a fay examen tamit dem nañ yàlla jàppale ñu tamit ba tey ñu jël deuxième du centre ñu am moyenne bu baax di ko sante yàlla nag di ko sante fondation bi ndax mënuñ leen a fay ndax lépp c'est grâce à grâce ñoom ak tonton Allé ndax dépp boobu ba tey bàyyiwuñu moo ñu suivre di ñu encourager tamit di leen sant rek ndax man awma seen fay man xam naa baax awma seen fay te lii dina ma yokk jomm ndax ku am jomm boo ko jàppalee da nga koy yokk jom duñ tiit duñ ragal incha allah dinañ xuus si yoon bi ànd ci yàlla bam jeex te fas yéene na nag ah góorgóorlu luñ man ngir jàppandal bi ngeen ñuy jàppale te di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla jàppale ba lépp lu ñu mbébal rek yàlla nañ ci yàlla jàppale ngeen yàgg di kontaan suñu ay résultat yaayam tamit di ñaanal fondation humanitaire bu Jolof. dañu xëy duñ dem école duñ ndékki dañuy wàcc duñ ndékki lépp da leen di daal yàlla nag sutural na ma comme ni ma bool ni ma amate ba boole ma ak ale boole ma ak ñeneen. jërëjëf kon nag yàlla na taxawaay bu yokk yàlla dëgër leen bu baax a baax yàlla guddal seen fan xale yi ngeen yàlla na yàlla yàlla ngeen ci am contentement. li ngeen yaakaar ci ñoom lépp yal nañ ko yàlla defal yàlla barkeel seeni njaboot ñoom bañ leen dégg leen ca kaw a kaw a kaw ci barke Mouhamed. ñoom ñëpp am yéen a wéyal seenum njàng Fatmata Ka bëgg a suivre li di droit fu la ci université faatu gajaga woy di am Pastef ngir eggale am njàngam ba mën a yeggale yéene yi jàppale ki nga xam ne mooy juróom bu jigéen fondation humanitaire bu Jolof gannaaw bi mu mayee ab ambulance centre de santé Elisabeth Diouf bu Daara Jolof tabax na ñaari salle de classe ca institut islamique soxna Kiné Niang ak ay barabu gaanuwaay ca école Daara Mbayeen ak ca école Sidi Albouri Ndiaye dolli si mi ngi fayal fanweeri ndaw ak ñett ñi nga xam ne ñu ngi jàng alxuraan mi ngi jébbal ay ndimbal lu toll ci ñetti téeméer way laago ci korite gi ak tabaski gi ñu génn